kon loolu dañ koy ñaan acteurs yi yëpp waaye di waxaat ni euh, jàmm moom pour mu am il faut mu lalu ci dëgg xam nga fu dëgg amut moom yàgg-yàgg problème dafay am madame la ministre lan nga bëgg wax foofu bu dëgg amul problème dafay continuer waaw non c'est-à-dire déjà ñun dañoo ñun ñëpp ay sénégalais lañu mhm. il faut que déjà ñun ñëpp ñu d'accord ci loolu ah suñu euh, président yi jiitu rawatina Senghor toujours mu ngi doon mettre accent ci li ñu naan la nation. Et une nation bi une nation en construction Donc, ba sommes vraiment une vraie nation Donc, les, nga dégg ñu la Assome dëkku fi. Mhm. Assome nga mhm. mais vous faites da une nation vous Des voilà.